أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفى طيف الكرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسباني قد جفى طيف الكرى ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaniirahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bu jaahi yaasin mbokki téléspectateurs yi ñoo ko dundandoo fii xadara bi nga xam ne moom moo doon am fii ci jumaay Seydi Aboubacar Sy góor gi na suñu ginnaaw waaye euh, mbokki taalibe seex yëpp ñëw nañ ngir fekkee si lii nga xam ni moom mooy xadaratul jumaa bi ginnaaw démb ñu tëj burdu bi fas yéene gàmmu ndiki ëllëg ndaam sax nëpp mënuñoo teewee li nga xam ne moom mooy xew fii ci biir jumaa ji waaye ñi nga xam ne mën nañu koo teewee am nañu taw feexu ñëw teewee ko El Hadj Mouhamed Mbaye Miftah nag laa feggool ci sama ci sama wet ngir ñu waxtaane lépp li nga xam ni yëg nañu ko dund ko fii ci zawiya Cheikh Seydi Aboubacar fii nga xam ni fii la lépp xewee diggante démb ak tey El Hadj Mouhamed mbay maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziara bu baax a baax Baye Jamil di kontaan bu baax ci bis bu tedd bi nga xam ni moom nga laaj ñu fas yéene ci waxtaan incha allah te muy yowmul macha allah daañu la laaj nan nga dundee xadara bi tey ak ban yëgee nga am taalibe cheikh yi ni ñu ñëwee ñëpp ñëw naam mënuñu dugg ñoom ñëpp ngir fekkee si xadara bi nga xam ni moom moo sës rëkk ci gàmmu gi. waaw wax ne rek jërëjëf Cheikh Sidil Hadji Malick loolu moom fu ñu toll war nañ koy wax ndax tey ku gis ni journée bi demee depuis ci suba ba léegi li fi jaar ci julli àjjuma gi jóge fa ñëw ci xadaratul jumaa bi te. Cheikh Sidil Xaaji Malick boo demee ci Faatihat Tulaab mi nga naan wa raayana zikran al maaluma fi yowmi jumatin takun alima nee na zikru yowmul jumaa dafa bokk ci lawaasimu tarixa bi moom xadrat jumaa dafa bokk ci lawaasimu tarixa bi xadra bi li fiy farata mooy wasifa werd ak xadrat jumaa ñett yi ñooy lawaasimu tarixa bi ñetteel bi nag moom lañ doon def nii te mooy xadratul jumaa muy lu am solo ndax takkun alima jooju Seydil Hadji Malick wax xadarat juma dafay ubbi am xel dafay kiis la kiis dafay yokk nit ki xam-xam dafay yombal nit ki ak mokkal kon jaaraama Seydil Hadji Malick war nañ ko koy wax ci ci boo gisee nit ñi dal gi àndal ci biir ak ci bit nag góor ñi ak jigéen ñi àndandoo ko muy xadara bo nga xam ni tey fu waay toog rek yëg nga ni def nga xadara kon loolu dañ koy sante ki nga xam ni moom mooy Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ndax moom moo ñu ko may wax dëgg yàlla Seydil Hadji Malick ñuy bannante ko ci leeru cheikh ba di ci noyyi li ci réew mi grâce à Cheikh Seydil Hadji Malick kon nag Seydil Hadji Malick mu amuluñ ko fay waaye nag dañ koy boole ki nga xam ne moom ku mu fay nga bëgg te mooy yàlla mu ñaan yàlla mu fayal ñu ko parce que tamit fi mu ñëwee moom rek moo fi mënoon a ñëw lijjanti lijjanti réew mi moom rek moo mënoon a ñëw Seydil Hadji Malick fi ñu ko yónnee moom rek moo fi mënoon a ñëw lijjanti mbir mi kon kon la ko maam Haadi waxoon rek loolu lañ koy wax loolu lañ koy wax euh, waxaat atayta wa diinullaahi yasku ilayka loolu mooy li nga xam ne moo am solo bi ngay ñëw diine mi ngi la doon tawat te diine bi mu lay tawat fi nga ñëwee ku fa ñëw ku dul woon yow mënul woon a régler loolu moo tax mu ne ko abal habibi salil al xutbi osmana wa xiida asrika tayidan wa irfana dégg nga ahsanta fi diini wa dunya muamalatan mu ne ko wallahu yujzika bil ihsani ihsana nasaxta ummata xayril xalqi muctamilan asqalaha rafian li diini arkana lii ci li ñu Seydil Xaaji Malik gàddu la bokk ndax lu ñu waroon a dem di ko jëli la ndax njariñal àdduna bépp la tarixa seex du Sénégal du Afrique monde entier la ñëpp ñoo moom njëriñ loolu parce que ñëpp ñoo ciy jariñu kon buñ demee ba di ci bannante ko ci leer yi jërëjëf Seydi Hadji Malick loolu la ñu war a wax. mais lan mooy xadaratul juma ak lan moo tax ñu taamu bésu aljuma. waaw xadaratul juma Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu moom moo ko boole ci biir lawaasim yi tariqa bi muy door a ñëw benn ponk rek la woon te mooy werd werd rek moom moo fi nekkoon laa ilaha illallah téeméer dégg nga laa ilaaha laa sax yéex naa ñëw ndax salaatul fatiha moo ko njëkk ak astaghfirullah biñ ci demee ba dem ci lu mat ñetti at ci lañ door a mottali li nga xam ne mooy laa ilaaha illallaah mu mat waaye moom lawaasim yi boobu rek moo fi nekkoonte te mooy werd ginnaaw gi lañ indi wasifa ginnaaw gi lañ ci teg xadaratul jumaa lépp daal di mat kon buñ la nee xadara ci bisu jumaa lañ koy def ci ngoon gi li tax Seydina seex dàkk ngoon gi mooy yonente bi dafa wax ne am na benn saa benn waxtu bu nekk ci bisu ajuma boo xam ne yàlla du ci delloo ñaan mag ñi làmbu nañ ko fu ne waaye seex moom nee na li ci njortam not mooy mi ngi am ci diggante biñ sëlmalee tàkkusaan ba ba ñu julli timis mu ni kon nag naa dugal foofu xadarat jumaa bu waxtu wi di jot dajeeg sama njaboot toog ñoom lu ci mënta am dana leen fekk ñu tudd yàlla di bàkk yàlla di ko di ko sant nee na loolu bu ñàkk ñoom ñu tombee ak li nga xam ne moom mooy saa boobu kon bëggal ñu mbaax ak bëggal ñu jariñu ak bëggal ñu rek ñun ñëpp ñu mucc moo taxal mu dugal foofu xadarat juma moom Seydina Cheikh jërëjëf Oustaz Mouhamed Mbaye Miftah dégg ngeen noonu nga xam ne moom la faram fàccee lii nga xam ne mooy xadatul juma ak mu faram fàccee yëg-yëg bi ñu am tey fii ci juma yi Cheikh Seydi Aboubacar waaye nag du ñàkk ma laaj la ñu waxaat rek ci thème bi ndax am gi mu am solo di waxulu li naa si xusnan tem bi ñu war a waxtaanee suba incha allah ci gàmmu gi Serigne Babacar Mansour di ñaan yàlla guddal fanam mook njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp waaye di jaajëfal itam Serigne Mansour Sy Jamil moo taxawee burdu bi fii ci zawiya maamam waaye Serigne Maodo mu alaaji Abdou Dembe itam mu taxawee budd ba foofu ca zawiya Cheikh Seydil Hadji Malick euh, te mu gàmm gi waxulu lu naas xusnan ndax mën nañ ci wax ba gàmm gi jeex ba at mi yëpp sax ndax mënuñu koo jeexal ndax am gi mu am solo. waaw waxulu lu naas xusnan sànq ci suba rek xam nga man maa ngi la koy wax maa ngi naan dafa war a am suivi tam la boo xam dafa war a am suivi warul yem ci gàmm gi après dañ ko war a topp di ko topp année bi yëpp a jamono dafa fekk nit ñi fi mu toll nii ñuy toppi kaa Sénégal dañu ñeme topp kaa ay groupe WhatsApp yoo xam ne topp kaa la ah ay kër yoo xam ne boo fa demee topp kaa lañ moo tax ñu ko ay appartement topp kaa yooyu yëpp mi ngi ci réew mi te yooyu yëpp yàq deru nit moom moo tax ñu fay daje. télévision yi am na émission yoo xam ne ay émission topp kaa lañ ko tuddee yooyu yëpp yàq deru nit ñi lañ fay nekkee te nag euh, laatal tamis an masaawir naa si masataru boo ko defee rek fa yahtikallaahu sitran an masaawiika nooy def mu ni waskur mahasina ma fihim iza zakaru wala taib ahadan minhum bi ma fiika maanaam nit ñi li ñuy nëbbu ci seen biir te bëgguñu kenn gës ko loolu kenn warul am accès di àgg di ko gëstu di ko génneel nit ñi loolu nag mooy topp kaa topp kaa mooy fekk lu nit ki di nëbbu nga fexe ba wuñërti ko teg ko ci askan wi ñëpp teg ci seen bët. dañoo waxoon wala tajassasu. wala tajassasu bu leen di yëddoonte wala tajassasu mooy bu leen di yëddoonte ñun nag ñu dem topp di yëddoonte di di di di di gëstoonte ay mbiri nit ba def ci ay cas lool lépp ci ci yàq der gi la bokk te loolu nag kon bu sëñ bi indee wa quuluu li naasi xusnan te nag ahsin ila naasi tastaabilu qulubuhumu wa taala mastaabada al insaan ihsaan dafay nekk loo xam lu am solo doon te dafa nekk loo xam ne moo xam dafa ñëw ci waxtoom maanaam moo tax ma ni gàmm gi bu mu nekk loo xam dañ koy wax nii rek dañ koy wax nii rek gàmm ko après mu jeex déedéet ëpp naa de nañ bu baax a baax a baax ci thème bi ko sëñ bi indee ak waxtu wi ko indi bu ko defee bu nit ñi bi 2023 la ñuy dugg mu nekk at moo xam day bees tàq ci jikko yi ci lépp day daal di baaxaat allah bu ko defee mëpp a ma jàppan incha allah macha allah mënul ñàkk nag ñu laaj la ci góor gi nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw di Cheikh Seydou Aboubacar borom bonekaare bi borom sacré yàlla bi ah góor gi mooy kan ci tënk waaw léegi laa koy wax xale yi man leen sëñ Babacar si coup coup d'état na Maodo coup d'état na Maodo parce que dama xool ci suba bi ñuy julli jumaa ji waxtu woowu ni mu tàngee rang gi ma ko fekk na mu soree nit ñëpp rang uti xabru sëriñ Babacar si ma xool rangi xoolaat rang yi nga gis ci façon nit bu ne ay notable ay nit ñoo xam ne xamuñu naaj nga gis leen ñu taxaw ci rang yi di topp fan ngir yaare ji Serigne Babacar Sy kon Serigne Babacar Sy moo nekk ko nga xam ni maanaam kenn mënu ko wax man damay toog di jàngat ay mbiram ba ci ak kenn mënu ko wax xale yi judd ci ginnaaw mbay boo génnee fii da ngay gis teset yu bari xale yi sol ko ñu bind ci xale yi judd ci ginnaaw mbay ndox jëm ca mbay yooyu yëpp xale yi di ko organiser ay groupe pour cent sopp mbay yooyu yëpp maa ngi koy gis ci biir dëkk bi kon daal sëriñ Babacar la ko àllaaji Abdou waxoon rek hamdan li rabbin karimin xasanaa ci rubir ci ay ngëneelam ki tax ma jug di fent sigab ak di julli ala bariyati man mawlaahu xayyarahu faxtaari nekk di dar ngir tàgg koo xam ne ay xar baaxam ak li ci moom minal fadaa ili kon ngeen mooy ci moom du dëgër àllaaji Abdou dem ba ci biir mu naan ñee leen xeram te ni miig yéen ñëpp ma tuut bihi uallimukum maa huwa ahsanu dur dem ba ci yàgg mu naan bu leen di gam-gamle mbër waa daaki suq ak i nguux te xam ni siiru bu dee fàddi du tax mu di gar dem ba ci yàgg naan ko xalifatu seyxi muxtaari yaa fi di mbër yaa fi fajal diine ay daanam te ñëpp war dem ba naan ko suy um nga lamb ji haasal asri kenn du ko mim ku nekk sempi samtam dellu goor ni ki xar parce sëriñ Babacar tamit bul fàttali fi Alaaji di jóge ku fi bàyyi Maalik bi jóge ku fi bàyyi woon ku sëriñ Babacar alaaji Malick moo fi bàyyi ay alaaji Malick alaaji Malick bi mu fi jóge daf fee bàyyi ay alaaji Malick yu taxaw mag ñi mu fi bàyyi woon ku nekk alaaji Malick na te ñoo ñëpp yaakaaroon nañu ñooy yuut ñooy wuutu Maodo sëriñ Babacar si ñëw génn ci fanweeri at yoo xam tuuti la teg bariwul ñëw ni maay gàdd sama xilaaf ak bàyyi da ngeen a yaakaar ni maa ko des jël sama bopp waaye lii ñu ngi ko des jël ca ba mag ñi yaakaar ni matu ko ndagate mat na ko sëriñ Babacar si ndagate yow moom ba muy nekk xalifa bàyyam bàyyam a ngi dund sëriñ Babacar xamoon nga ni bi muy wuutu bàyyam bàyyam a ngi dund moo tax toog ba sa bàyyi génn àdduna nga koy door a wuutu ci ñàkk fayda la bokk yaa fuus la bokk yaa fuus la bokk sëriñ Babacar si bi muy wuutu baayam booba a ngi dund ci kaw suuf kon sëriñ Babacar moo nekk nit ko nga xam ne kenn mënu ko wax waaye nag boo xoolee dëkk bi xam ne sëriñ Babacar am na fi cër kon ñun li ñuy ñaan mooy yàlla nañ yàlla def dëgg dëgg taalibé sëriñ Babacar yàlla xale yi niñ soppee sëriñ Babacar yàlla bu mu leen um waaw man su ma leen di xool sama yaram day daw ma gisee nit ko sopp sëriñ Babacar si am na ko te xale yi doo leen xool dañ xam dañ sopp mun Babacar Si kon sëñ Babacar Si mooy ki xam ni amul morom lenkoon de nation boobu nga dégg ñuy wax Maodo sëñ Babacar Si bi lenkoon de nation waaw duñ ko xam xale yi dañ koo sopp ni rek waaye duñ ko xam xale bu far jamaa lañ koy jàppee rek leerax leerax jaax lërax lërax ji rek la cay am waaye doo xam ni li yor ni mën naa dundal baayam ren ba déwoon kon sëñ Babacar Si yàlla nañu yàlla wax mooy kan dëgg-dëgg te yàlla def ñu dëgg-dëgg nag soppee sëriñ Babacar Si ngi ko si guddi gi nga xam ni moo gën junni guddi ndax ki ci juddu di sangu àdduna ak alaaxira judduwul guddi judduwul bëccëg moom yonent bi suba nag lañu koy màggal fépp ci réew mi waaye Tiwaawan particulièrement la ñëpp di xool ngir gàmmu gi nga xam ne moom la ñu fi gàmmu Seex Seydil Hadj Malick woote ko waaye sëriñ Babacar Mansour yàlla na yàlla guddal fanam moo koy rakam ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fii ci Tiwaawan yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na yàlla sàmm mboolem waaye maa ngi ziar bu baax moom Abdou Ndeye Marème gisaguma la nag ci gàmmu gi waaye dinañu gisee incha allah ni leen leen koy toppalee fii ci tàkku TV la lumière di cœur wéy leen duñu topp ndax mbir a ngi ci jërë jëf المصطفى طيف الكرم